alaaj Modou Cissé teew na xam ngeen ne mooy suñu imaamu zaawiya te mag ñi ñoo ko doyloo Serigne Cheikh ma gën a la toog sëñ Boubacar sànq ba léegi sëñ Abdourahman ñoom ñëpp a solu sànq bi ñu nee yéene ñëw ndax ñun xeebuñu leen te fii ko fii mën di ñëw ak koo mën di doon ñi ñu war a jiital mooy ñi ñu dëkkal yéen ñii lañ dëkkal centre bii bu amee gàcce du ñun ñëpp la nañ leen ci góorgóorlu bu wote jotee ñu dem wote ji te ñu def jàmm jàmm dañ koy wax di ko sàkku dañ koy jëf maa ngi tënk foofu waxtu wi jot na am na leneen lu ñu waroon a mën a wax waaye salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yal nañ yàlla may ndam ci li ñuy jëm yal nañ yàlla may ndam ci li ñuy jëm ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke maam Cheikh Umarul Fuutiyu barke maam El Hadj Ahmad Njegéen barke maam El Hadj Baro salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ñun doomi daara lañu. ñun doomi daara lañu. te président day. te président day. daara saf na ko. daara saf na ko. daara yitteel na ko. daara yitteel na ko. bàyyi na xel daara na xel daara. jox na ko cërit. jox na ko cërit itam. kon. kon loolu nga xam ni. loolu nga xam ni. mooy sunu waay mooy sunu waay ku ko fonk. képp ku ko fonk. faale ko. faale ko bàyyi ko xel. bàyyi ko xel. booy sàkku dara. booy sàkku dara. ñu gunge la ci. ñu ñu gunge la ci. te ba eh, dellu nag ci sunuy kilifa. dellu it ci sunuy kilifa. ci sunuy weeruwaay suñuy wéeruwaay sàkku ci ñoom ñaan sàkku ci ñoom ñaan sàkku ci ñoom gunge sàkku ci ñoom gunge sàkku ci ñoom doole sàkku ci ñoom doole ngir lii nuy sàkku ndax yàlla jox ñu ci ndam yàlla jox ñu tànk yi daal tànk yi daal loolu dong ko waral dong ko waral di leen dellu di leen dellu di ziyaar di di sàkku ñaan di sàkku ñaan di ñaanit yàlla di ñaanit ñaanuk taalibe la waaye jëm ci ay kilifa waaye jëm ci ndax yenn saa yi ndax taalibe war naa ñaanal kilifaam it di leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla dëgëral taxawaay yàlla seen taxawaay. féq fan yi féq fan yi jox leen wér. jox leen wér. ba leer gi nga xam ni. leer gi nga xam ni mi ngi doon. mi ngi doon. ci Cheikh Moune Ndiaye Daabaay. te Serigne Moune Ndiaye Daabaay. Euh, rogalaat ba ci yéen. rogalaat ba ci yéen. te téye bi dëgër. te téye bi dëgër. bi rafet. téye bi yaakaar téye lool. téye yàlla na ko yàlla saxal. yàlla na ko yàlla saxal. yàlla bu yaakaar tas fii. yàlla yàlla ya yaakaar gi ci yéen. te xam nañu ne kat. te xam nañu ne kat. loolu. loolu la kilifa ga doon wax. la kilifa ga doon wax. njortul manjuug. njortul manjuug. loolu njortul manjuug la. nee na njortul manjuug la. ndax xam na ndax xam na ci lu wér a wér. lu wér a wér. ni yaakaar du tase fii. ni yaakaar moom du tase fii. kon tàllal nañ nañ leen suñuy loxo nañ leen suñu loxo yi dénk nañ leen suñu bopp dénk nañ leen suñu bopp ngir yàlla jox président Macky Sall ndam ngir yàlla jox président ci fii ci école bii nga xam ni waa Kër Cheikh ginnaaw raay ak Kër Maam Alaaji fi la ñuy wootee école bii nga xamante ni Kër Cheikh ak ginnaaw raay ak Kër Maam Alaaji ak Daaba yëpp fi la ñuy wootee waaye it waaye it ci biir zone nord gépp ci biir zone waaye ci biir Thiès gépp waaye ci biir Thiès gépp waaye ci biir Sénégal gépp nag bu ko defee bu nu wootee ci ngoonu 24 jox Macky Sall ndam li. ñu jox sa président Macky Sall ndam li. ci ëllëg sa. ñu delluwaat ci liggéey bi. ñu delluwaat ci liggéey ndax Sénégal li mu laaj ci liggéey. ndax Sénégal li ci liggéey. ci Pastef. ci Pastef ak jom. ak jom ak fulla. ak mi ngi ci moom. te am nañu yaakaar. te am nañu yaakaar ni li ñu bëgg ci Sénégal. li ñu bëgg ci Sénégal mën na koo def. na koo def kon nag asalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa taala wa barakatuh. xaw nañoo guddee bi ñuy jokkoo démb dama ni la woon xam naa avant timis lañ fiy ñëw mais jataayu kër sëriñ des fois moo lay tënk ba programme bi nga te laloon doo ko mën a respecté ñu lay jéggalu bu baax parce que ragal naa heure bii daan na la fekk nga fatu bi ci des mooy tey jii ñu dëkk ci kër gi rek ñoo fi ñëw. ñu dëkk ci kër gi rek ñoo fi ñëw ñu xam kër gi aussi ñoo fi ñëw seen ñëw nag li ko waral mooy dañuy jublu ci ay mbir mbir yi ñuy jublu mooy tànn njiitum réew ñii nga fi gis ñii ñëpp ñu ànd ñëpp président Macky Sall àndal mooy coalition benn Bokk Yaakaar yàlla defal ñu sutura jataay bi am mag am ndaw am jigéen ñu ànd ak ay mag ñu baax ñoo xàmmee nyu tonton Sidi nyu tonton Sey ñoom tonton Mamadi Ba ñu ànd ak ay soxna yu bah, nyu Fat Seye ngi fi nyu ñoom Mato ngi fi ñoom Fatma Mbaye ngi fi ñëpp a ngi fi ñu ànd ak waa Kër Cheikh nekk fi sa njaboot xale yu jig góor yi aussi nekk fi yu jigéen ñu ndaw ñu nekk fi ñu ñëwoon tey ci yow niñ ko daan chaque année. li ëmb centre de vote Alaaji Ahmad Baro ñoo xam ne am na ñuy jugee fii di ñëw ji voté si centre Alaaji Ahmad Baro ñooñu ñoo ànd tey ñëw seet si la dañ naam dañ daan ñëw chaque jour di la seet bu ñu dëmmalee lii nga ñaanal ñu wan ñu sa jàppale ñaanal ñu bu ñu demee bi bañ fiy mujj bee paase yàlla daf ñoo jox ndam kër Cheikh Ibrahima Fall gi ma nekk. sama kër maam nee na ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall gii mu nekk di kër maamam. moo fi sama bunt. nee moom mii moo fi buntam. ginnaaw ginnaaw. ginnaaw. sëñ Cheikh Ndigal. sëriñ Cheikh Ndigal. mii kilifa gi. mii kilifa gi. Euh, tey rek. nee na tey rek. yàlla seede na ko. yàlla seede na ko. si pencam mii laa añee. nee na ci pencam mii fi la añee tey. te njabootam gépp nee na njabootam gépp doon sunu njaboot doon seenu njaboot soxna Fatou Touré nee na soxna Fatou Touré bu sëñ Cheikh Ndigal bu sëriñ Cheikh Ndigal Fall soxna Aïda Fall soxna Aïda Fall Mbeng Mbeng ak soxna Ndeye Gueye Thiam ak soxna Ndeye Gueye Thiam soxna Ndiaye Fall soxna Ndiaye Fall ñooñu ñëpp ci njabootam nee na ñooñu ñëpp ci njaboot gi lan bokk yàlla def yàlla def politique naam boole nañu. nee na daam politique boole na leen. waaye dafa am cofeel sunu diggante. waaye dafa am cofeel ci seen diggante. te dañuy ñaan yàlla. te dañuy ñaan yàlla. bis bu ñu joxee deuxième mandat président ba pare. bis bu ñu joxee deuxième premier mandat président Macky Sall. suñu demee di noppalu. nee na bu ñu demee di noppalu. sunu diggante ñun ñii. sunu diggante ñun ñii. wëy. wëy ba rogalaat sunu njaboot ba rogalaat ci sunu njaboot. ndax ànd boo gis. ndax ànd boo gis. dafa am cofeel. dafa am cofeel. te man. ko am na sentir nañ ko sunu diggante. nee na na seen diggante loolu cofeel gi. politique boolewuñu. nee na politique boolewu leen. te penc mii. te penc mii. dama fee am féete. dafee am ay féete. ndax damay toog léegi léegi. nee na day toog léegi léegi. sëñ Jiili Sarr. sëriñ Jiili Sarr. mu soxna Jeefaal. moom soxna Jeefaal. ji ma woo léegi. di ko woo fii ci jotaay bi. ma naan ko maa ngi nii si pencum. nee na mu ni ko maa ngi nii ci sunu particularité sunu comité électoral zone nord bi. nee na communiqué communauté bi nga xamante ni fi la nii ndax dañ ma dénk zone nord. nee na dañ koo dénk zone nord. ma dëkk kër El Hadj Ahmed Baro. nee na mu dëkk kër El Hadj Ahmed Baro. ñu dénk jigéenu zone nord yi. nee na ñu dénk jigéenu zone nord yi. soxna Jé Jé Gaye. soxna Jé Gaye. mu soxna Astu. mu soxna Astu. mu Chérif Assane. mu Chérif Assane. Naaru Kawsara. Naaru Kawsara. donc ma barki démb nee naa ko xaw ma ndax def nga ci jàngatam xaw ma dem déet déet nee na ko ndax xaw ma nga ci jàngatam déet. mu ni ko yàlla nañu yàlla lafal cat. mu ni yàlla nañu yàlla lafal cat. ndax tamit. ndax na delloon nañu buum ca boy boy. delloon nañu buum ca boy boy ba. waaw ndax sédd nañu kër Alaaji Ahmad Baro. ndax sédd nañu kër Alaaji Ahmad Baro. sédd kër Cheikh Ibrahima. sédd kër maam Cheikh Ibrahima Fall. ñaan yàlla ñaan yàlla. suñu yi sunu barke maam yi. wala ñu fi muy wala ñëw fi. war euh, euh, na mat ñaari at ci ginnaaw. nee war naa mat ñaari at ci ginnaaw. damay dem élection. nee na day dem élection yi. ñu diggal ma. ñu diggal ko. ne ma penc mii. ni ko penc mi na nga fi ñëw na nga fi ñëw. Euh, tàllal say loxo. tàllal fi say loxo. ma ñëw fii. nee na mu ñëw fii. maa jigéen ñëpp ñu segg suñuy café ñu ñëw. ñuy segg suñuy café ñuy segg seen kafe nga jël sa ñaq. nee na nga jël sa ñaq. dollil ñu. nee na daal leen cay dolli. ca la sama xel dale nee na ca la xelam dale ba léegi. ma ne gees nee na mu ne gees. ma demal néegu Makka. mu ne ko demal néegu Makka. déglu sëñ Modou Moustapha. déglu sëñ Modou Moustapha. nga ñaan nga ñaan. dem si taatu Dakar ga. dem nga caat taatu Dakar ga. ñaan ñaan. te ma ñaanee. te ba ba mu ñaane seen barke maam. seen barke maam. yàlla wallu na yàlla na walla na ko lool. ma bëggaat euh, faal yaaram. nee na gàttal rek ci faal yaaram. may sa biige kumba faal may sa biige Kumba Fall. Eh, may bëggaan. ah Fall. ndimbal ak yërmande. ndimbal ak yërmande rek. <laughs> <laughs> di la dénk. nee di la dénk. ki ñu àndal di la dénk. di la dénk ku ñu àndal di la dénk. mooy son excellence. mooy son excellence. le président de la république. le président Macky Sall. ak dénk la. ak dénk la. ministre Maguette Seye. ministre Maguette Seye. mii sax njabootug bopp. mii sax njabootug bopp. cheikh yi. cheikh yi. ñii sax njabootug bopp ñii sax njabootug bopp. E ñoom Moussa Fall. ñoom Moussa Fall. Modou Gassama. Modou Gassama. ak njaboot gi ñu àndal yëpp. ak njaboot gi ñu àndal yëpp. xam ne ñëpp. nga xam ni ñoom ñëpp. Fall. Fall sax njaboot lañu. sax njaboot lañu. yërmande. yërmande rek. lañu bëgg a daga Mbargane nee na asalaamaaleykum sëriñ bi maa ngi lay nuyu nee na sëriñ bi mu ngi lay nuyu di la ziyaar di la ziyaar di teg ci sa loxo nuyoo ak ziyaar nee na di teg nuyoo ak ziyaar ci sa loxo ngir ñu jottali ko ngir ñu jottali ko euh, sëriñ Cheikh sëriñ Cheikh mi nga xam ni mi nga xam ni moo fi toogee moo fi toogee jataayu jataayu euh, sëriñ Cheikh Fall Baye Góor sëriñ Cheikh Fall Baye Góor euh, di nuyu nee na di nuyu. mboolem njaboot gi. mboolem njaboot gi. di ñëw foo xam ni it. nee di ñëw foo xam ni it. Euh, am na yeneen i tànk ak yeneen i jataay yu ñu fiy ñëwee. am na yeneen tànk ak yeneen i jataay yu fiy ñëwee. waaye tey ñëw bi. waaye nee na tey ñëw bi. dañoo ñëw. dañoo ñëw. ci turu. ci turu. ak euh, jataayu. ak jataayu. kilifa. kilifa gi ñu nga xam ni. gi nu yónni. moo nu yónni. ñu wutal. ñu wutal. di saytul. di saytul. mbir. mbir mi nga xam ni. mi nga xam ni ci la ñuy jublu. ci la ñu jublu. le 24 bi di ñëw. le 24 bi ñu jëm. muy élection présidentielle. muy élection présidentielle euh muy comité électoral. néna muy comité électoral. bi nga xam ni. bi nga xam ni. mooy saytu. mooy saytu. li ëmb yëpp école bi di école Kër Maam Alaaji. li ëmb école yépp li école bi ak école ak Kër Maam Alaaji. loolu. loolu. ak nag. ak nag ànd ak suñu jigéen. ànd ak suñu jigéen. Seyna bu Njegéen. soxna Seyna bu Njegéen. nga xam ni. nga xam ni lépp luy saytu. lépp luy saytu. élection. élection ci pour candidat Macky Sall. ci mbir ci candidat Macky Sall. ci zone nord. ci zone nord. ci loxoom lañ ko teg. ci loxoom lañ ko teg. Euh, loolu bu nu koy tàmbali. nee na loolu bu nu tàmbali. campagne ubbi. campagne ubbi. li ñu war. li ñu war. xam nañu ko. xam nañu ko. mooy. mooy bërëb yi nga xam ni. bërëb yi nga xam ni. bu élection amee. bu élection amee. bu élection élection amul. bu élection amul. fa ngay war a dem. fa ngay a dem. di ndax defaru àdduna. ndax ak defaru àllaaxira. ak defaru àllaaxira. fa nga ko yaakaar. booy tàmbali lu mel nii. booy tàmbali lu mel nii. fa nga war a jublu. foofu nga war a jublu. loolu mooy suñu tànki tey yi. mooy suñu tànki yi fii. julli ci Seydina Mohamed. nee na ji julli ci Seydina Mohamed. yeesalaat sunu pas-pas. nee na yeesalaat sunu pas-pas. ci Serigne Touba. ci Serigne Touba. jaarale ko Cheikh Ibrahima Fall. jaarale ko ci maam Cheikh Ibrahima Fall. ñu ngi maa ngi fi toog ak sama rak. nee na mi ngi fi toog ak rakam. ñu koy wax Cheikh Mbène. mi koy ñu koy wax sëñ Cheikh Mbène Fall. ak magi taalibe yi fi toog. ak magi taalibe yi fi toog yëpp. di nuyu sëñ Alpha Ndiaye nee na di nuyu sëriñ Alpha mii. di ko siyaare. di ko muy sunu rakk itam. nee na muy seen rakk itam. di santaat yàlla. nee na ñu santaat yàlla. màggat mii nga xam ne. nee na màggat say mii nga xam ni. mu yàlla danoo boole lu yàgg. nee na yàlla daf leen a boole lu yàgg. ndax ak soxna Seyna bu njegen mi. ak soxna Seyna bu njegen mi. di di wat itam. di wat itam. Mouhamadou Sey mi fi tok neena mafal job Sey mi fi tok waye nak waye nak di wat ma faal job mi di wat nak ma faal job mi ndax. ndax. as gor mom neena as gor mom gore kep ko mom neena gore. gore rek gore rek la mom gore rek la man. kon suma ko fi gisee. neena kon bu ko fi gisee. mu and ak yeen mu and ak yeen te Omar. te Omar. ñu seq lu bari. ñu seq lu bari. ci doomu aadama yi ni ma ko def ak màggat mi. nee na ci doomu aadama yi comme ni mu ko seq ak màggat mi toog. ndax. ndax. kuy dund ci nit. kuy dund ci nit. te lekkoo nit. sa lekkoo nit. danga fonk nit. nee na da nga fonk nit. gis naa gasama mee. nee na gis na gasama mee toog. ndax démb la woon. ndax démb la woon. du tey. du tey seega. ñun nag. nee na ñun nag. lu nu waay defal. lu nu waay defal. te muy aw yiw. te aw yiw. danañ ko béral. danañ ko béral. su dee safaan. nee na su dee safaan. duñ ko wax kenn. duñ ko wax kenn. dañ cee maandu rek. dañ cey maandu rek. ñii nag. nee na ñii nag. fi daje. ñii fi daje. dégg nañ Ayda li mu wax léegi. nee na dégg nañu soxna Ayda li wax léegi. waaye nag as gor su ne. waaye nee na as gor su ne. suñ ko juree ci ngor. suñ ko juree ci ngor. bu mu jàpp ni dañ maa jur ci ngor rek. nee na bu mu jàpp ni dañ maa jur ci ngor rek. day fexe ba ñi ko jur ci ngor. nee na day fexe ba ñi ko jur ca ngor. bañ bañ koo gën a gore. bañ koo gën a gore. nit nag. nee na nit nag. da ngay seet ñi gën ci réew mi. da ngay seet ñi gën ci réew mi. ñi yàlla gënal. ñi yàlla gënal. nga def leen ay nawle. nga def leen ay nawle. du tey ñu gën la. nee na du tey ñu gën la. waaye da nga leen di defi nawle. waaye danga leen di defi nawle. ndax fii mu ne. ndax fii mu ne. rasulullahi mi tax ñu binduñu. nee na rasulullahi mi tax ñu binduñu. lépp. lépp. lu baax lépp lu baax lépp yàlla jox na ko ko yàlla jox na ko waaye safaan ba yoonam newu ci waaye safaan ba yoonam nekku ca kon da ngay fexe nag kon nag dangay fexe ba def ñooñu nawle ba def ñooñu nawle liñ lay gën gën liñ lay gën gën ku seexul xadim noonu seexul xadim noonu da ngay fexe da ngay fexe ba def leen nawle ba def leen nawle Cheikh bi Fall noonu nee na maam Cheikh Ibra Fall noonu waaye dangay ngay fexe waaye nee dangay ngay fexe ba def leen nawle ba def leen nawle ñii nag nee na ñii nag alaaji màggat mi nee na alaaji màggat say mii toog seq nañ démb lu bari. nee na seq nañ démb lu bare bari. loo xam ne. loo xam ni. moom xam na ma. moom xam na ko. ma xam ko. nee na mu xam ko. ma moom moomu noonu. nee na ma faal noonu. ndax nit. ndax nit. su gëmee yàlla. su gëmee yàlla. na ñeme dëgg. na ñeme dëgg. lépp lu la jariñ. nee na lépp lu lay jariñ. yàlla la yàlla la. waaye nag kam ko jaarale. waaye kam ko jaarale. nanga ko sant. nan ko sant. na nga ko gërëm. nan ko gërëm. ndax yàlla da koo jaarale ci moom. ndax yàlla da koo jaarale ci moom. mu nangu ko mu nangu ko. te léeg-léeg. te léeg-léeg. yàlla jaarale dara ci mbir. yàlla jaarale nit dara ci mbir. ci nit ci nit. boole laa kooka. boole laa kooka. ndam la koy joxe. ndam la koy joxe. soo dee soo dee asgor. gedd ko. da nga koy daal gedd. nit koo xam ne nag. nit koo xam ne nag. da lay teral. da lay teral. ngir yàlla. ngir yàlla. su la ñaanloo. bu la ñaanloo. da nga ko ñaanal. da ko ñaanal. lam lay terale. nee na bu la terale. lam lay terale. lam lay tere. yàlla yokkal ko ko. yàlla yokkal ko ko. yaakaar jam ci am. yaakaar jëm ci am. yàlla defal ko ko. yàlla defal ko ko. ñu ngi la koy ñaanal. ñu ngi la koy ñaanal nag. sëy. sëy. li ngay sàkku. li ngay sàkku. yàlla defal la ko. defal la ko. ci président. président. ci président. ci président. ñu tal ko. ñu tal ko. fekke ko. fekke ko. mu ndox mu seddu guy. muy ndox rek rek ci jàmm rek am benn ay bañ am aw ay bañ ci am lool rek lool rek nga bëgg nga bëgg ñu ngi la koy ñaanal ñu koy ñaanal ci barke sëñ bi ci barke sëriñ bi naar dañoo ne dafa yuuxu jëmale gémmiñ ñi gànnaar nee na dañoo wax ni naar daa yuuxu jël gémmiñ gi jëmale ko gànnaar ñu ni lax lan ñu ni ko ndax lan ñu ni ay mbokkam mu ni ay mbokkam man yow laa am nee na moom yow rek la am léegi euh, ndax ndax euh, dama bokk ak yow soxna Amidia nee na daa bokk ak yow soxna Amidia Amidia soxna Amidia bokk ak yow alaaji ahmad njegen bokk ak yow alaaji ahmad njegen sam papa ak sa papa bokk ndey ak bay neena way juram al seigne abdou ak seigne munir bokk ndey ak bay nam dina la denkat sama bop Nenah nam dina la denkat bopam waa yow yaangi ci waye yow yaangi ci loolu yaang may ñaanal ci bir yaang may ñaanal ci bir ak ci biti ak ci biti xamna ni jappale nga ma ko neena xamna ni jappale nga ko bu baax a baax a ndax man dama amatul luddul yeen neena da amatul sam papa la amone neena bayam la amone mu dem. mu dem alaaji Muniiru fi nekk. alaaji Muniiru fi nekk. te yaay alaaji Muniiru. te yow mii yaay alaaji Muniiru. ndax man alaaji Muniiru mooy sama sëriñ. tam alaaji Muniiru mooy mooy sëriñam. ma lay tàllal loxo. nee na mu lay tàllal loxo. bëgg nga ñaanal ma ki ma àndal. nee na bëgg nga ñaanal ko ak ki mu àndal. bëgg am ndam. bëgg am ndam. ndax góor xajul ci gàcce. nee na ndax góor xajul ci gàcce. dañoo gagné centre Kër El Hadj Ahmed Baro. nee na dañoo gagné centre Kër El Hadj Ahmed Baro. ñu yëkkati zone nord. ñu yëkkati zone nord. muy 19 centre. muy 19 centre. jox ma ko. nee na jox ko ko. te nga ni ba ma àndeek président dafa yàgg. na te xam nga ni ba ma àndeek président Macky Sall dafa yàgg. daanaka fukki at a ngi nii aw ma fii. nee na daanaka fukki at a ngi nii aw ma fii. may daw rek ci parti bi may daw rek nekk nekk ci réew mi mu sasaat ma. nee mu sasaat ko. comme na ma sasee 2012. nee na ba mu ko sasee 2012. ma bëgg yàlla. bëgg yàlla. ak euh, yonent bi. ak yonent bi. ak Cheikhou Tidiane. ak Cheikhou Tidiane. ak El Hadj Ahmed Baro. ak El Hadj Ahmed Baro. ak sëñ Munir. ak sëñ Munir. ma dese. bi mu dese. jaarale kaat fañ ko jaarale. nee na jaarale ko fañ ko daan jaarale. ci barke Nabi Moustapha. ci barke Nabi Moustapha. nee na yaakaar na ni ginnaaw kàddu yu nu dégg yépp. Euh, surtout lii ñu mujjee dégg mu jóge ci Seynabou. nee na surtout lii ñu mujjee dégg mu jóge ci Adja Zeynab mi. Euh, waxi xol la. nee ku ko dégg xam ni wax ji waxi xol la. boo ko dégloo ba pare. boo ko dégloo ba pare. di ci teg leneen. di ci teg leneen. day tey xel sax. nee na day tey sax tey sax sa xel. Euh, li mbokk mi wax sànq. nee na lii mbokk mi wax sànq. sama diggante ak yow. nee na sama diggante ak yow. Euh, diggante ndénkaane la ak ki ñu dénk. diggante ndénkaane la ak ki ñu dénk. dañ ma laa dénk. nee na dañ ma laa dénk. nga téyel ma sa bopp. nee na nga téyel ma sa bopp. di saytu dénk bi. di saytu dénk bi. loolu dénk boobu nag. nee na dénk boobu nag. lii ñuy wut tey. lii ñuy wut tey. dugg na ci biir. nee na dugg na ca la jataay bii. nee na jataay bii. ñu am fii. ñu am fii. dañ ko waxtaane man ak yow. dañ ko waxtaane man ak yow. lu jiitu nii. lu jiitu nii. ma ni la sañu ñoo bañ a ñëw. nee na ma ni la sañu ñoo bañ a ñëw. ndax dañ ginnaaw dañ ma laa dénk. ginnaaw dañ ma laa dénk. ñu am lu ñuy dox. ñu am lu ñuy dox. faw ñu ñëw ba ci yaw faw ñu ñëw ba ci yow. xam naa ni bu ñu ñëwee. nee na xam naa ne bu ñu ñëwee. ak bu ñu ñëwul. ak bu ñu ñëwul. du tere. du tere. ni nga ñuy sàmme. ni nga ñuy sàmme. ak di ñu saytoo. ak di ñu saytoo. ak di lijjanti suñuy mbir. ak di lijjanti suñuy nga koy def. loolu du doo ci jug da koy def. waaye jataay bii. waaye jataay bii. dafa war. dafa war li tax. li tax. ginnaaw dañuy am koo xam ni ay tànkam la ñuy doxe ginnaaw dafa am koo xamante ni ay tànkam la ñuy doxe di waxe kàddoom fi di waxe kàddoom fu nu toll muy président Macky Sall muy président Macky Sall te moom mooy wut te moom mooy wut te li muy wut te li muy wut am ci lu bari loo xam ni am ci lu bari loo xam ni damaa sañu wax lépp rek nee na mën noo wax lépp nag dama sañu wax lépp nee na daa sañu lépp nag waaye am ci lu bari loo xam ni lu bari loo xam ni xam naa ni mën nga koo lijjanti nee na xam na ni bu wér ni mën koo lijjanti njëgeen moo tax ñu ñëw fii. moo tax ñu ñëw fii. nii Zeynab def. nee na nii Zeynab bu def. dénkaat la suñu bopp. dénkaat la suñu bopp. waaye dénkaat la lii ñuy wuti. waaye dénkaat la itam. am ci yaakaar nag. am ci yaakaar itam. yenn yi boo koy doxi. nee na yenn yi boo koy doxi. am ñoo àndal. am ñoo àndal. sa xel day dal. sa xel day dal. bi ñuy jóg di ñëw. bi ñuy jóg di ñëw. kilifa yi ñu bokkal. nee na kilifa yi ñu bokkal. alxaaji Sidi. alxaaji Sidi. alxaaji Mamadou. alxaaji Mamadou. alxaaji Mamadou. alxaaji Mamadou. Serigne Alpha. ñëw ànd ak ñun. ñëw ànd ak ñun. ñu ànd. ak mboolem ñi nga xam ni. ak mboolem dañuy jàppale président. dañuy jàppale président. muy APR. muy APR. Benno Bokk Yaakaar. Benno Bokk Yaakaar. mouvement de soutien yi. de soutien yi. parti allié muy la grande coalition présidentielle. muy grande coalition président de la république. ñëpp ànd. ñëpp ànd. def benn takk. Euh, fas yéene euh, waxandoo. fas yéene waxandoo. jëfandoo. jëfandoo. xàccandoo. xàccandoo. dóorandoo. dóorandoo. sa njabootu bopp gii ànd ci. bopp gii ànd muy Soxna Zeynep. muy Soxna muy Mamadou. muy Mamadou. muy Mafal. muy Mafal. muy Yoro. muy Yoro. ñoo xam ni ñëpp sa njaboot lañu. ñoo xam ni sa njaboot lañu. waaye yeesal ndénkaane la ñuy lii ñu lii ñu jublu daal. nee na lii ñu jublu daal. ndam lañ ci bëgg. ndam lañ ci bëgg. lii ñu jublu. lii ndam lañ ci bëgg. nee ndam rek lañ ci bëgg njëkk. asalaamaaleykum monsieur le coordonnateur départemental de Benno Bokk Yaakaar ñu ngi dalal si jàmm yow ak délégation bi nga àndal si zone nord tey nag bi ñu wooyee dafa fekk booba ñu ngi si proximité sax naam mais ñun ñëpp dañoo replier waat su neexee yàlla dañuy continuer waat di eggale liggéey bi léegi incha allah zone nord nag ñu la dalal. moi les vice coordonnateur du comité électoral monsieur Lamine Aïcha Fall vice-coordonnateur du comité électoral madame Hawa Dupré vice-coordonnatrice du comité électoral Ibrahim Ouad, vice-coordonnateur du comité électoral euh, Charles Sis, e, directeur de la SOLT à Nia, euh, du parti socialiste Ousmane Diop de Fall Askan ñooñu ñëpp ñoo jóg taxaw ñëw tey lu dalal la ci jàmm ci zone nord suñu paree si biir coordonnateur yi dal ci sa mandataire monsieur Mbale Diop moom it moo la dalal fii la présidente des femmes su ma ko libéré tëxëñ naa ci femmes yi nekk zone nord muy soxna Jéegay moom tamit dalal na la fii tey si zone nord ñu nag tey monsieur le ministre dañuy jëli engagement te defoon nañ ko 2012. yàlla a ci sutura dañu jëlaat engagement ñaan yàlla comme que daan jaarale mu jaarale ko Xaadimu Mustafaa ñun nag am na ay doléance lu ñu am ci zone parce que suñu fi gis suñu la nee gis la suñu coordonnateur président de la république la ñuy gis ndax am doléance yoo xam ne pour ci nekk ni zone nord mooy vivier électoral ñeneen donc bëgg ci si adduction d'eau ci poto yi fi mu war a egg mu egg fa si fan yi ak tamit ñu jàppale surtout surtout jigéen am nañu ay doléance naam ndax DER bi am na ci ñu jot seen attestation ba léegi man ko ne su neexee yàlla naa la ko nga jàppale te nag président Macky Sall li jigéen ñi Cees ne takku nañu ñoom ñu daan nekkoon dootu ñu lay bokk fi mu nekk nii takku nañu laxasaayu nañu dañooy àndandoo yu àndandoo maanaam pare su neexee yàlla. ndax dafa jël Thiès def ko kenn yokk mooy le pilier du développement ndax ku xooloon Thiès fan yee ak Thiès mu toll nii nga xam ni président du ci loolu ndax dafa jël aéroport la Thiès eggal ci biir Thiès léegi fanweeri minute ñu egg Dakar dëkkee tuñu Dakar ñun ñu gis nañu dem toppatoo dañuy toppatoo wàññeeku yi fii fii daan am problème ndox yëpp fi mu toll nii ndox amatu ko ak tamit depuis les indépendances depuis 1960. jigéenu Thiès bu suñu woon jot financement si nguuru président Macky Sall lañ ko defee dañu président ñu koy sant ñu koy gërëm parce que ñun jigéenu Thiès sonnoon nañu ku ci sa doom euh, dawoon Jakarta mi ngi jaay café Touba ñu naan seen réew liggéeyul ndax bi ñu ko yóbbu woon mooy compte nguur nee nañu dootuñu compte jigéenu président euh, Sénégal ci Thiès particulièrement yu zone nord yi may waxee seen tur nee nañu sant nañ la daal mais tey incha allahu rabi au soir du 24 février su neexee yàlla dinañ jël ndam

c'est la qualité des hommes il y a quand même ay élections élection, une si ci élection présidentielle une des plus importantes de notre histoire compte tenu du candidat un candidat admiré partout dans le monde nous nul n'est prophète chez soi, il doit être prophète chez lui c'est un bon cadre. les les c'était surtout pour voir si les troupes sont prêtes pour le combat Et les femelles partout elles sont prêtes les la elles sont toutes prêtes toutes donc di leen

am nañu trois millions six pare loolu yaakaar naa liggéey bu rafet nee na nag da ngeen ci def da ngeen def porte à porte bi ñu jox mooy loolu noonu ñu def ko en direction des services maanaam boobu pour collecter les signatures nañ ko def pour collecter. les votes. et c'est extrêmement important te wér na ko ni loolu war nañu ko def pourquoi parce que en 5 ans les réalisations sont palpables leer na nañ réalisés qui réaliser ci biir Sénégal fànn boo jël président def na fa lu jéggi dayo donc war nañu xam ni am nañu fu ñuy teg tànk pour mën a wax nit nee na bu ñu defee loolu incha allah bu ñu amee dans l'unité dinañu mën a am la victoire au soir du 24